thank you jërëjëf mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax ci time yi ñu ngi waxtaan ak MC Cham Junior MC nag euh, you know du gan ci biir kër gi ba tey euh, ñu ngi waxtaan on something very very different euh, ci li nga xam ne loolu lañ dee waxtaan ak MC of course yëgoon nañ ne MC Cham tey dem nga State House ba pare you know am na ay waxtaan yi nga xam ne moom moo xew foofu noonu MC ndax ñu ne digga digga tigi tigi dem nga pale waaw jërëjëf fa maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant bu baax. di nuyu gàmmen si yëpp euh, ñu déglu programme bi yëpp nekk si réew mi ak si diaspora bi a ah, di wax rek euh, demoon naa tey si président bi bu euh, nga xam ne am naa invitation State House pour le MITCO waxtaan naa moom si affaire réew mi loolu foog naa dafa am solo doomi réew mu nekk State House di State House yi NPP State House yi Gambia la kenn ku nekk ret euh, war ngaa mën a dem foofu waxtaana njiiti réew mi euh, si affaire réew mi mm. euh, bu nga xam ne man ñëpp xam ne suma taxawaay si réew mi yaaga naa wax si rajo yi si télé yi réew ni mu demee tey am naa di opportunité toogaa moom waxtaan naa moom lu ma a wax si rajo yi ak télé yi waxtaan naa ko moom tey tam moom tam moo ma xelaatam tam mu nekk open discussion man ak moom welcome very nice wax dëgg yàlla yaaga naa fa trop di waxtaan moom si affaire réew mi so kon loolu euh, loolu lañ war loolu lañ war a gis mm. tey loolu wan na ne euh, kenn ku nekk war ngaa mën a am euh, sa right mm. waaw dañu bëri tey suñu la gisee nga def street house lu ñu mooy ah dafa dem pour cross carpet so loolu foog naa loolu tey génn na tey because tey feeñ na tey si si réew mi léegi ne kenn ku nekk am nga right pour dem si street house bi du benn parti moo moom réew maa ko moom mm. MC um, ñu ne boo mitee président Barrow ah what was the first impression and again uh, ban kind of nit nga gis uh, si président Barrow is it ne dëgg la lu gaa dee wax ku kuul la ku kaam la ba kuy dégloo la. waaw tey welcome ma waxtaanee maanaam moom waxtaan bu am solo uh, because tey yu ma doon wax si rajo yi télé yëpp si affaire réew mi yëpp waxtaan naa ko moom. ne ko ne man nangu naa dogal yàlla yaay président réew mi ba lu ma nanguwul mooy ni réew mi demee yu bari tey d'accord ma si mu nangu déglu ma. ma wax pare tam mu tontu ma tam euh, wax tam position am euh, nguuraan ak nu mu demee si yu bëri euh, mu nekk open discussion waxtaan bu am solo waxtaan bu yaatu leen waxtaan foofu tey yëpp si affaire réew da ngaa gis ne nit ki tam ñun suñu maas yi yàlla daf ñu dimbale suñu waxee ñu yàgg ñu déglu soo tam loolu dafa dimbale réew mi hmm. tey su wax ñu laa tam am na hmm. hmm. a a réew mi ko te soxale lu ñu wax si réew mi yëpp moom moo amee kii si réew mi mu a nekk kii si réew mi hmm. so foog naa si demee si moom waxtaan naa moom tam ne a ah lii mu ngi xew si réew mi wax nañ si rajo yi nii ak déggu tam waaye nga jël ëpp ci dem toog ak waxtaan moom tam loolu yaaxu dara ban façon nit nga gis si moom ndax you know a doon ree yéen a doon kaf am ngeen you know waaw am neen waxtaan sax moom sax mu xam ne moom lu yàgga mu xale nga wala ku yàgg si politique nga mu ne ma bu ma la xam du tey euh, waxtaane waxtaane ba rafet mu moom lu yàgg tam si mbiri politique tam euh, because mu ma xam na xam na ma bu baax a baax tam hmm. pare xam na ne politicien laa tam xam na ne tam euh, nekkuma euh, nit ku ndaw si politique euh, lu ma def xam naa ko tam mu ngi mu ne ma tey moom suma big suma biggest critique moo ñëw tey <laughs> State House bi c'est breaking news <laughs> pour ñu waxtaan bi réew mi xam nga ñu waxtaan rek kaf yëpp andi bi loolu moo war a am si réew mi mm. because tey kenn ku nekk am nga daay dem gisi président bi du crime mm. nekku dara gisi président taxu nga dem join président bi o nga join NPP as a party mm. but dafa rafet nga am xelaat nekkul nekkul lu bees si réew mi fii waaw euh, sama patit la la dem foofu euh, am good ideas yoo xam ne mu ngi ko am tam dem toogaa moom waxtaan naa moom ne de ah lii ak lii laa bëgg pour réew mi tam mu ngi xam parce que Demba na téléphone am kool parti leader itam si wax ko na tam nga oote dialogue wax réew mi wax naa ko yëpp xalaat naa ko ko tam. Hmm. dañ a am si réew ndax ndax loxo dajewut ñu ne nag non ndax loxo yi dajewut ndax <laughs> bras enveloppe bi dawul. non non xam nga yooyu gars yi dégg naa bi yooyu bras enveloppe ndangam ndangam yooyu paa réew mi leen gis waaw ay bras enveloppe ay yooyu yëpp yooyu taxu ñu dem State House den fii laaj nii jot nañu dem bit ko waxaa moom mu xam réew mi nu mu demee. la invité lii jafe na ñaar dañoo bëgg ñu ol ni yow su nekkee day dem nga am lu tey sant yàlla la. Hmm. bu ma ko waxtaanee ñu bëri ñi nga xam ne sumay xarit leen den ma xelal pour ma dem pare bu maa dem tam suma pati yëg na ko wan naa ko ma ne Sir House mu ne ma demal suñ la ooyee su ko soo kon loolu dara si soo foog naa ne tey euh, pare ñu ma si wax yëpp ñu ma si waxtaan yëpp lu ñu si wax mooy ku la oo uyu ko dama ko waxtaan ñoom réew mi ñu ma ko bokk soo foog naa loolu dara nekku su ma xam ne lu lu bon la waaw tey su nekkoon tey moo war a dem cross capet euh, borom dëj bi nu ko olof day waxee mun naa jooy dëjam kon may taxaw ne cross naa kafet man dama ne euh, MC Thiam dara lu mu bëgg def dinaa ko def waaye demu fa pour cross kafet waaw MC nag ñu ne na ku gis président la ne ñu ah, MC ana affaire yi. waaw euh, xam nga xam nga gars yi dañuy wax rek. bu ma fa demee waxtaan fa nekk ñu waxtaan ñu welcome ma very nice. Mm. definitely welcome ne ma filuloo ne waaw na ko sax ma yow lii mooy big ma gën a critique suma government xam nga tey mu ñëw toog ñu waxtaan xam nga waxtaan bi yëpp waxtaan réew mi leen waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan bu ba definitely ñëpp ree kaf nuyente nataal bu génn nii sax nataal warutoon génn bi ne mobile bi na ak président bi ma génne ko because ëllëg kenn xamul ëllëg mu neen toog rek ñu ne waaw demoon na fa ñu génne ñu wax ma ne dama koy génne taal bi wan ne man lu ma def man lu ma def transfert la mu am dafa leer nañ si bu diwtinti ne demoon naa fa gis naa président bi mën naa dem benn taal benn taal ne ko fa man maa request na taal ak président bi pour ñu xamante ñi ñu gis ne dem naa fa pour ñu xam ne produit bi du saaga xaste ko ne nga ay des ngay joxe suñu ne maa ko ne président ma ne man suma jabar xam nga dafa am lu ma ko miinaan fu dem dama la taal seen ko suma jabar suuf ne ma ah, ne ma ne waaw ne ma maa dem hmm. dem foofu wax la hmm. hmm. ngi dem foofu su la neexee nga ci buntu buntu bi nga xaar wa kon nubuuma waaw yëpp dafa leer kon nagaa yi dala seen xel ne dama dem foofu pour affaire yi réew mi loolu la wasum gaabe bi na sax ne réew mi laa dem pour waxtaane an kenn ku nekk am nga right pour dem gis président bi waxtaan bi réew mi waxtaan bari ndax ñu ne gis nga lu gars yi dee wax si moom ne ne ku kuul la tamit you know mi ngi nekk saytam waaw noonu euh, mu ku kuul la because ku dal la ku tey la euh, because time euh, jafe na comme ku mel ni MC Cham di le criticize constantly yëpp onasan nga nga war ko <laughs> welcome ko dama wala solo nga ñëw ñu waxtaan nga ñëw ñu toog waxtaan man ak yow wataan bu yàgg ay awas mu déglu ma moo pare mu wax ma waxatam yëpp si waxtaani réew mi kaada gi réew mi dundi réew mi wérgu yaram bi agriculture ak réew mi mu demee yëpp waxtaan nañ ko man ak moom ñu ne boo waxtaanee président bi euh, you know feel nga ne government bi ñu ngi jël ay efforts. waaw saafara problème. waaw waaw loolu la wax ba wax na loolu ne moom government am nañ pare di ngi taxaw di def ay sa jël def ay sa di nga jël ay saafara pour gis ne dem euh, concerne gaa si di di jooy ni yëpp ñu ngi koo dégg pare nañ pour gis ne yooyu nañ ko saafara nu mu a gaawee. ñu ne ndax euh, dem nga beneen opportunité su ñëwee pour demaat pour waxtaan mbir yooyu ndax di nga di nga ko defaat. of course. bu ma gaa ooyee pour ma dem waxtaan ak mbiri réew mi dinaa dem toog waxtaan ak moom. nekkoon si moom laay dem damaa leen toogal ministre yi from maa ngi war a dem ministre of vision sport waxtaan ak mbiri stade ko ah ba léegi lu tax léegi bi door a gudd dinaa ministre bi waxtaan ak ministre bi. te du loolu rek place yi dem man bala maa crise ji damaa dem toog yow ministre ba laay dem seen office toog waxtaan ak ñoom nee na ah man dama bëgg a a moo tax lii di lay am nii tax lii yëg lii xamul ministre of works naa dem si moom. mbiri OIC bi war naa si war na mën a waxtaan laaj ko fa la yónni tooloogum la OIC bi na am war nañ ko bi yooyu yëpp naa ko def naa ko soo waaye daal affaire bi daal en wuloo sa bagage yi dem bokk yi. rali wuloo daal <laughs> non loolu moom boo si amee yaa ko biree quoi <laughs> boo si amul yaay def breaking news bi. <laughs> parce xam nga man suma mbir. Ah, man suma intu caam suma yaram bi ñaar la bii suma famille bi ñoo ko moom. bi askan bi ñoo ko moom lu maa def si kaw suufu njaam waxtaan askan bi parce que parti laa bokka parti jii di si laa bokka nekk na si executive committee bi ba tey may di youth president du parti so kon tey lu ma mën def si kaw suuf damaa waxtaan suma famille bi hmm. waxtaan tam suma am di jaama yi ak suma soppate ak ñu maa déglu ne di laa bëgg a def kenn ku wax sa xalaat kon euh, man lu laay lu laay dundee du ma ros dara lu nekk dama ko am fu ma koo teg wala ñu xam ne la xamul lu wasoon Gambie nataal bu ngay génnee man maa man maa nataal maa ko jël pour transparence pour ñu xam ne nubuwuma bu maa dem tàggoon na bu maa ne waxtaan naa ay nit ne liila laa maa ngi dem in ma ool ma dem toogaat président bi waxtaan naa moom bi réew mi thank you very much uh, MC uh, ñu neen yaa moom rek a toogoon ndax dafa amoon ñu ne ñu bokkoon si waxtaan uh, maa ngi fa am na kilifa yi nekkoon tam mm. ñu tam ñu ngi fa si waxtaan bi mm. waaw ñu ngi fa toogoon ñëpp di waxtaan waxtaan bu yaatu la woon mm. waaw kenn ku nekk wax sa xelaat tam from there tam moo joxe su bëree waxtaan bi si ëppal mën naa présenté ñu ne gën a waxtaan ñaar MC jërëjëf jërëjëf